Euh, leen seen bànneex nga bokk kook ñoom seen naqar nga bokk kook ñoom ngay jéem a settantal xel ak xalaat mm-hmm. di wecceek ñoom ngir seen dëkkin bët bu set mm-hmm. gën a rafet gën a baax gën a ñoŋ mm-hmm. noonu laa gisee engagement politique te loolu lay jéem fa ma dëkk ci Nord Foire ca Yoff plus largement ci Ouest Foire ak yeneen gox ci biir ci biir commune de Yoff jàpp ma tam ne sunu jamonoy politique fi mu toll nii Papa Ngagne dañoo toll ci ay échappée solitaire échappée solitaire baaxul. mooy ku ne demal solo. ku nekk demal sa bopp di yaakaar ne yow yaa yor l'étoile lii li président Macky Sall di wax naan euh, tout droit sorti de croix se croire tout droit sorti de la cuisse de Jupiter loolu mënul doxati. en pourtant loolu lañ lay jiiñ Pape Mahawa. Ah, si si si si si si si yoof dañuy jàpp ni da nga ñëw bëgg a demal sa bopp bàyyi Diouf Sarr fële bàyyi ñu fa nekk fële. Euh, déedéet loolu loolu ku ko xalaati da nga jub rek. Diouf Sarr sama mag la. Eh, ci wax nii rek quand même mais ci demlante demeetul noonu. ah kay man musuma am tiis wala bànneex bu. ah non waxuñu loolu loolu sax ku sa ku sa mag da nga ko ciy gis. waaw mais man sama mag la non non non politique la ñuy wax. waaw ah, dama bëgg par exemple ñu taxaw ci loolu. parce que boo ma waxee yow yaa ko wax. yaa ni politique bi nekkatul ku ne dangay ngay demal. demal sa sa demal sa bopp. alors que loolu la ñu gis biir Yoff. Ah, maanaam maanaam division. réeroo ñàkk a déggoo ñàkk a ànd ci seen biir. mais loolu lañ gis. donc soo ko soo ko waxee te amul mais. <laughs> na dama ne. waaw gëw ma échappé solitaire gëw ma sa demal sa bopp te gëw ma it kenn mën ma jiiñ loolu nekkuma ci loolu. Euh, li may dox mooy fexe nit ñi ànd waxuma la sax Yoff rek mais en général sama démarche politique noonu laa ko gisee. d'accord après parce que, après parce que après, politique après, politique œuvre collective. yi est-ce que évaluer ngeen ko ci Yoff. évaluer guñ ko mais j'ai appelé j'ai appelé j'ai appelé man à à ce nit ñi dajaloo ñu toog waxtaan xool nu ñuy remobiliser les troupes à la base te dinañ ko def incha allah loolu amul problème. mais woote nga fi rek bu yàggul ci ci fii nga xam ni euh, euh, nu mu ti mooy euh, place bi nga xam ni fi la ñuy defee spectacle.